mbokk yi bésu tey bii doon na bés bu ñu ñor doon na bésu ndaw ñi waaye doon tamit bésu askan bi nga xamante ni ñoom ñëpp xam nañ ni réew mi lu koy gën di doxal mooy di jàmmoo waaye dëggu te dëggal moo tax xam nañ ni bés bi doon na bés yi nga xamante ni gën nañu ko fonk ndax xam nañ ni tey bés bi dina bokk ci taaxiru réew mi ndax xam nañ ni ndaw yi ko woote fii wax dëgg yàlla ku fi gis ni jotaay bi ay ndaw rek ñoo fi nekk loolu dafay di Sénégal AMNE na mille sens mu jëm ci développement ci kaw ñu jox gëdd ci ndaw ñi waye tamit ndaw yi nga xamanteni def nañ ci ñom ay valeur duppe ko ci kaddu gi nga xamanteni moy ndaw du fowee deug ma len ci encouragé di len féliciter. di wax tamit xalaat nañ ni jéego yu ñu jot a tegandikul ci gis nañ ni réew mi am nañu yaakaar ci ndaw yi modi réew bu war a am naataange dafa war a compter ci ay ndawam ndaw yi nga xamante ni yaakaar nañ ni war nañu sukkandiku ci àq ak yelleef waaye ci aada yi nga xamante ni suñu maam yi bàyyi nañu ko fi mu di fegu mu di dëggu moo di taxawu seen askan. mouvement bi bi ñu ko créé yàggul juróom-ñeenti weer rek la def. bi mu defee juróom-ñeenti weer ba léegi gis nañ ci ay résultats gis nañ ni am na yu bëree bëri yi nga xamante ni def nañu ko mooy que euh, ndaw yi nga xamante ni taxaw nañ ngir mën a génne ci xat-xat yi nga xamante ni seen réew mu ngi koy dund te li ñu koy lu tax ñu di ko dund lu ne mooy ñàkk fegu fegu boobu nag yaakaar naa ne lu tax ñu di ko def mooy que dañu bëgg incha allahu suñu ndaw yi am ay valeurs yoo xamante ni ci bonne gouvernance lay tegu maa ngi leen di jaajëfal du ma fàtte tamit nuyu sama naataango yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ku ci mel ni chef de village bi mu di jibisi waaye di nuyu suñu xarit yi nga xamante ni ñoo fi nekk ngir développement wu réew bi ah di nuyu tamit suñu kilifa gi nga xamante ni mooy jaraafu dëkk bi li di ko wooyee monsieur ousman Sarr am na ay jéego yu am solo yi nga xamante ni tàmbali na ko ci suñu gox bii waaye lu tax ñu di ko cité ci en tant que ndaw du foowee dëgg te ñu wax tout ni kat mouvement bii ñuy wax ndaw du foowee dëgg amul benn appartenance politique waaye moo ngi am li nga xamante ni mooy képp ku mën a jariñ sa askan ñu mën a ànd ak moom ngir mën ko jàppale Lolo tax nous ñuy euh, encourager monsieur le maire ci taxaway bi nga xamanteni taxaw nako ci réew mi ñu wax ko continuer liguey de ndaw ñi am nañu fayda ak bi nga dafa taxaw ngir askan bi ñu soutenir je pense que loolu mooy tey jotaayu tey bi tey ndaw ji ñuy wax wax ndaw du foowee dëgg doon nañu ay ndaw yi nga xamante ni am nañu dignité am nañu responsabilité xam nañ tamit lan nañu ñu seen réew ginnaaw bi ñu saytoo li nga xamante ni mooy yàqu-yàqu yi nga xamante ni jot naa am ci biir réew mi loolu nag dafay firndeel ni jullitu yàlla bi li mu war a taxawee mooy am bëgg-bëgg réewam bëgg-bëgg réew dañu koy jàngal ndaw waaye du ñu jikki-jikki rek wax ni ndaw ñi da nga war a bëgg sa réew te xamuñu lan mooy réew réew bu koom-koom nekk réew bu suñu maam yi nga xamante ni ñu jàngal ay valeur du mu nekk réew bi nga xamante ni xam na xamal nañu ndaw ñi ni ëllëg ñoom ñooy dooni mag donc kon bu ñu topp ci mumbaay yi ñu ndaw ñi bu ñu topp ci saraxole yi ñun ndaw ñi nañu dëggal suñu bopp bañ a bokk ci ñi nga xamante ni dañuy doon ndaw yi nga xamante ni fu ñu tourné ñu ne acam waaye nañu bokk ci ndaw ñi nga xamante ni xam nañ ni ëllëg réew mi bu taxawee jëm ci dëgg dëgg jëm ci développement dina ne ah ndaw ñi nga xamante ni moom la ñuy tuddee kuréelu ndaw du fowee dëgg def nañu liggéey bu am am solo ma bëggoon ngeen tàcc seen bopp yéen ñi nga xamante ni yéen bokk ci kuréel bi nga xamante ni mooy ndaw du fowee dëgg ma di encore une Ah, suñu wëllëree yi nga xamante ni jukkandi ne ko nuñ ci ñom xalaat ni am nañu vision pour le Sénégal mu ndaw ñi nga xamante ñom lañu la ñu invité boo tàllalee sa bët nga gis ni fi gisoo fi benn mag bu fi nekk ñepp ay jeunes lañ parce que xam nañu dëgg-dëgg réew mi bu fekkee dañu bëgg mu développer ndaw ñi ñoo koy développer donc

benn boo gis wàññi boo gis ci benn lay commencer li ñuy ëppal solo mooy gàncax gi nga xamante ni commencé nañ di leen suuxat mu wër senegal waaye mu ër wër Afrique ndax gis nañ ni dëkk bii nga xamante ni moom la ñu tàmmoo def fi gis nañ dëkk bii nga xamante ni moom la ñu tàmmoo muy di dëkk lam-lam lu tax ñu bëri dina laaj lu tax ñu def ko fi dañu xam ni lam-lam dëkk bu am koom la ci diwaan bii di diwaanu Chérif Lo gis nañ ni ñu baree bari ñoo ngi naan Moussa Sarr fi ngay defee sa lancement mouvement bi kat sori na est nit ñi dinañ ñëw waaye gis ngeen ak seeni bët gis ngeen ni jeunesse bi fu mu fu Moussa dem ñu topp ko fa te dëgg rek mooy dëgg li ñu ginnaaw dëgg kenn xamul lu mu doon ñu fas yéenee gën a góorgóorlu xamni dëkk nga xamanteni moy diwanu lamlam dama ko dama ko tann ci fi commencement mouvement ak sama commencement wu liggéey La xam ni dëkk bo xamanteni bu am comme comme la wax phosphate depuis bobu ba légui dañoo jug rek fekk fi phosphate bi gis jeexantal bi ci suñu dëkk bi xam ni am pollution atmosphérique bu fi am chaque jour suñu mami suñu suñu doom yi heure booleen leen rombee ñoo ngi jël ay mouchoir ñoo ngi sëqat te amul dara lu ko saafara ñu ni nag ci njiitu réew mi nga xamante ni moo fi nekk mu di la président monsieur Macky Sall nga xamante ni moo yilif ñëpp ñun ndaw du fowee dëgg ñoo koy tàllal suñu loxo mu gën a gersu askan bi ci li nga xamante ni ñun ndaw ñu ay ji dañu ko jàppee injustice ndax

njiitu réew mi mu bàyyi xel ci ndaw ñooñu ndaw yu am fayda ñoo nekk ci réew mi ndaw ñu bëgg seen bopp ñoo nekk ci réew mi ndaw yu ñu tàggat te ñu am formation ñoo nekk ci réew mi waaye ñoo ngi ñaan président de la république mi nga xamante ni mooy jiitu réew mi mu xool li nga xamante ni mooy jàng xale yi mu gën ko yokk mu xool tamit li nga xamante ni mooy xëyu ndaw ñi parce fii kër goo dem buñ fa jigee juróomi nit benn nit mooy liggéey des fois sax benn nit du liggéey kon commune bii di Chérif Lo ñun ñëpp ñu bëgg ko suñu biir xol réew mi di Sénégal ñun ñëpp bëgg ko suñu biir xol continent bii nga xamante ni moom lañu nekk mu di Afrique ñun ñëpp ñu bëgg ko suñu biir xol ñoo ngi ñaan kilifa gi nga xamante ni mooy kilifa réew mi mu bàyyi xel suñu message bi maa ngi gën ñaax sama bopp di ñaax ñi ma àndal ci dëgg ak dëggu ndaxte dafa amoon benn nit bu ma laaj mu ni ma musa yéen dey tur bi ngeen duppee seen mouvement bi mu di ndaw du fooy dëgg ñu nekk ci ay réew bu nga xamante ni dañuy faral di baaxantiku ñu ni mag kenn du ko wax ni ko déedéet waxuloo dëgg ma ne ko déedéet du dëgg boobu nga foog ñun waxuñu dëgg boobu ma dëgg bu ñuy wax dañoo wax ndaw ak dëgg ndaw nag mooy avenir dañu xam ni ndaw ëllëg mooy yor réew mi dëgg bi ñuy wax ñu ni kat nañu forme suñu xale yooyu ci seeni jàng bu ñu nekkee ay étudiants parce xale lenn rek nga mëna nek moy nga nek ci daara yi nga xamanteni moy mooy daara université comme ni koy waxee tay fofu dañ fay ko xam-xam benen xalé bi nga xamanteni tamit dafa tollu ci commencement liggéey ñu ni kat nañu wax ndaw du fowé deug pour leral leen leen lan moy ndaw du fowé deug xalé bi nga xamanteni dafa nek ci classe muy primaire ba terminal ba am master wala bu mu meuna am lu mu am dañu bëgg wax ni képp ko xamanteni yaangi jang bul di damay jang pour passer waaye na nga jang ngir am xam-xam na nga jang ngir am xam-xam ba ëlëk bu ñu la joxé lenn lo xamanteni réew mi moko soxla di nga ko mënal doxal ci doxal bo xamanteni da ngay da ngay am assurance do nek fa di lambatu ñun dëgg lañu wax wala bu fekkee nit ñi nga xamante ni dañuy liggéey ñuy liggéey ci suñu trayu bàmmeel mooy que lépp lu ñuy def ñu def ci njub def ko ci defin bu sell def ko tamit ni ñu la ko santé ak ni ñu la ko demandé ñu ne ndaw ñooñu la ñu soxla dëgg boobu la ñu soxla ma di lancé waat message di woo sama mbokk ndaw ñi réew mi nga xamante ni moom lañu am te mënuñu ko partagé ñun ñoo ko moom maa ngi leen di woo ci dal maa ngi di wo ci njambar maa ngi di wo ci fayda maa ngi di wo ci determination lolu lepp nak moy ndaw boo xamanteni da ngay gis sa réew am jafé jafe yu bari yu fi nek comment ça fait que rew mi ñu di tabax ngay dem diko tej ba paré di xalaataat suba ñu tabaxatal la lolu ana lan lay jëri donc man maa ngi leen di woowaat ci ku gis lu la metti nga taxaw am noo ko jooyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jàngal wax na ni doomu aadama bu am lu ko metti am na droit mu naqarlu ko ci xolam bu demee ba nga xamante ni metti na mu wax ko ak làmmañam waaye waxul mukk nañu yàq waxul mukk nañu dóore waxul mukk nañu def leneen loolu lañu bëgg mu jeex ci réew mi dina doon tey seen bayfal bayfal goo xamante ne du reculer lépp lu nga xamante ne du dëgg incha allah duma ci gis Moussa Sarr kenn du ko gis lu dul si lu dëgg dëgg rek ay dëgg lu ca ginnaaw dëgg kenn xamul lu mu doon ay caaxaan sax lañu ko wax moo tax maa ngi woowaat ndaw ñi incha allah feek ñoo ngi may teg ci bopp ndaw du fowee dëgg incha allahu dinañ ko doxalee comme charte yu ngeen ñu wooye parce que fii am na ay charte yu ñu teg ci ndaw du foowee dëgg ndaw du foowee dëgg même dañu xool ci bala ngay adhérer il faut que nga am moyen bu baax boo amul moyen bu baax dinañ la jéem a former ba nga bokk ci ñi nga xamante ne dañu am moyen yu baax tey tamit ñoo ngi góor góorlu bi xool encore une fois ndaw yi nga xamante ni amuñu liggéey ñu gën a góorgóorlu wan leen teg leen ci yoon wax leen nii la ñu witee liggéey bu ñu amee liggéey tamit ngala nañu ko fonk ndaxte ki na fi nga nekk boo fonkee sa métier incha allah gëm nañ ni réew mi dina jógee ci xat-xat yi nga xamante ni foofu la nekk. encore une fois maa ngi jërëf maa ngi jaajëfal sama mbokk yi nga xamante ni moom la ñu bokkal mouvement bi di nuyu euh, waa presse bi.